en fait waa waa Ba waa Amadou Ba ñoo fàq gis gis Sonko rek fàq quoi. <laughs> Anta Babacar Ngom moo xoromu mi kaas de moom daal mel na ni gars yi naan jumaa yeey Sonko Sonko jumaa mel na neexu ko léegi ne nag Anta Babacar mooy Anta Babacar Anta Babacar mooy ànd ma ne ko loolu koy jur di wax nag wax xam nañ ko <laughs> Anta Babacar kay li mu war wax mooy. principal campagne am mooy gis naa ne réew mi sàcc yi sàcc nañ alul réew mi ba sama classe gii yéen sama génération yi jigéen di tax mënu leen a lekk mënu leen a naan mënu leen a faju mënu leen a am classe sama waajur gi ñoo ak kii moo alalu réew mi boo tax ak agsi ci yéen alalu réew moomu ngeen moom it sama classe gi ñoo ngi koy wër di ko campagne di ko pasar pasare di leen ci geraat ak di leen ci jëndaat suuf yi nga xamante ne néew doole yeeku man pendant ati at suuf yooyu borom doole yi ñëw nañ ku mel ne ki sama baay tey ji gàttal nangoo ko ci ñoom te ñoom ci seen suuf yooyu lañ daan bàyyee ci lañ daan mën a lekk di ci mën a naane yooyu kenn waroon campagne yi daal nag man dinaa xeex ku mel ne ki sama baay ak ñi mel noonu ña doon def loolu yëpp ko jàmmaarloo ñoom jàmmaarloo ñoom xeex leen sama kéem tolluwaay kàttan moom ngay loolu la waroon a campagne mais anta anta Babacar mooy anta Babacar moom moom kooku xam nañ ko <laughs> ku xoroma la de waxam ji façon waxam bi dafa jox rek mosalu matul ko sàpp wala yaas bi la xam nga Musaylima dafa ñëw di jigéen fekk Seydina Diop Mustafa alayhi salaatu wa salaam yaa ngi yónni ko jox ko programme Musaylima ñëw ànd ak mbooloom ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg a dóor mbooloom a dóoraale bi sallallahu alayhi ko daal di génn présenté wu ci mbooloom ne léegi bi nangul na ma sama nubuwa léegi comme amul programme nag te gars yi neen ko ab yonent forcément daf ko daan jox téere yow am sa téere am sa livre mu ne ci biir programme yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ci lay jëlee téere loolu mooy def noonu noonu la xalifa Sall doxee bu ngeen ko xoolee Khalifa Sall fi ne ci biir Pastef ci la sàcc programme am moom mais xale Pastef yi comme que dañoo doy waar képp ko ne ko saa moom dafa xaraam sàcc gépp sàcc dafa xaraam <laughs> mosay la moo ko mosay moom def ne wa taaxi naati ñu ne ko xaa mu ne tax nan waaw mooy Anta Babacar Anta mooy Anta Babacar <laughs> turam lay wax di ko feetliwaat waaw mosay la ma ne wa taaxi naati ñu ne ko xaa ne tax nan ne wal xaaji naati ñu ne ko xaa mu ne ko xaj nan mu ne wal xaabisaati ñu ne xaa mu ne xof san mu ne ihaalatan wa sumnan maanaam alxuraan ay saar la de lii de ab saar la xam aw saar la kiree kon saaru alxuraan la bëgg a kiree nii nee na wa taahinaati tahnan wal xaajinaati xajnan wal xaabisaati xubsan ihaalatan wa sumnan ay waaye ndaw sàmba dolli ci nag innal arda baynana wa bayna xoraysin nisfayni walakin xoraysun xawmun laa yaxdiloon <laughs> ay innal arda baynana wa bayna xoreysin nisfayni waaye nag walakin xoreysin ñu ne ko xam mu ne xamul laa yaxadi nga ki gën a réew gën a kàccoore dàq sàcc gën nekku bandi te ci gàttal bu dee xas moroomam bandi bu dee xas kenn naan ko yow ak bandi nga rek dafay doy waar waaw mel ne sama benn waay jamono bi may toll ci gëstu xam-xam mooy xam-xamu nii nii rek jamono boobu man maa ngi bëgg xam-xam lu dul xam-xam-xam ko gënal sa gis benn pël xumma lan mooy ñu def karaama man karaama lool karaamatul xëy ni man goo xam ne jég gën a day wax waaw ah, ma topp ko rek pour mu jàngal ma karaama nekkub taalibeem nag fu nekk mu doxloo ma fa fu mu bëgg a dem ñu dem fa lekk nekkub taalibeem sa ngir bëgg mu jàngal ma xam topp ko rek nangu ma koo bàyyi ay fani fan sawaay ma topp ci ginnaawam rek bàyyi samay programme yëpp topp topp ko nekkub taalibeem <laughs> léegi kooku noonu ñu dem ba mu yàgg moom muy xas benn waaye naan diw daa mën a fen te moom ëtt naam yëpp fen la <laughs> maanaam kooku musuma musuma gis benn yoon bu mu waxee dëgg nga xam ne à la fin suñu ànd saa yu ma woy téléphone dama koy saaga la ma bëggoon mu jàngal ko ko ba pare <laughs> xam nga yow boo ma toppee man tiktak yi may def xeet yooyu <laughs> léegi benn bis laa ko dégg mu naan diw dafa mën a fen diw fen fen fen ku mën a fen ni diw musuma koo xam musuma koo gis te yàlla xam ne moom du wax dëgg man nag loolu yéem moom diw mi ni mën a fen bu bay xas yi mën a loolu ay yéem ay def may yëpp <laughs> waaye Musaylima ak mën a fen ak ñeme yàlla ak baatisme weesu wut nga ne man yàllaa ma yónni te di benn xale su jigéen boo demee nag ba bëgg a sikkal waa xoree sin nag <laughs> kooku dafay àgg ci day waar waaye antataabi kar ngay koy moom jur mu naan Ousmane mooy Ousmane Sonko mooy Sonko loolu xam nañu ko bu dee Anta Babacar mooy Anta Babacar xam nañu ko <laughs> mais Anta Babacar Ousmane Ousmane ak Ousmane ak Anta Babacar Ousmane Bassirou ak Anta Babacar dañoo bokk nag wax dëgg yàlla <laughs> wallaay ndeysaan réew mi yàqu na fi ni boo gisee ay Anta Babacar Ngom mii ah man sax boo moytu gëm naa ne ay Anta Babacar ngoom mii saa taxaw fii mën a mën a ñëw daan damay laaj réew mi ay Pape Djibril Fall man a taxaw fii man damay laaj réew mi ay ay ay ba mu jeex loolu yëpp li ko waral mooy politique bu yàqu politique bu Sénégal moo yàqu c'est que bu politique bi yàquwutoon terrain bi du widd ba ñuy jéem a am fu ñuy mais ñoom bu ñëwee fekk politique bi yàqu na terrain bi widd na ñu gaaw profité bëgg a dugg ci ji widdu terrain boobu. jëfandikoo witti googu ñoom pour jaar ci jàll te loolu yi nag mënut a dem vraiment wax moo tax Macky Sall yàq na réew mi waaw Macky Sall yàq na réew mi dara ku mel ne ay Pape Djibril amoon sax dutu ko amati man gëm naa gëm ci élection yi loolu sax mënutu koo am ci élection yi jëm bu amul semence tuuti sax Anta Babacar xaw koo tale parce que Anta Babacar lu mu dee dee xaw naa dee tuuti saa réew mi moment bi benn kenn rek fi nekk benn candidat fi nekk mooy Bassirou Diomaye fay à part candidat boobu parce que kii fi nekk pur waaye principal candidat moom dëgg-dëgg bi ñuy wax bi mën a ñëw sofi réew mi mooy Pastef moo tax sénégalais yi gën leen a góorgóor te gën a bàyyi xel incha allah war a soppeeku de nañu bàyyi xel ñi dee ci procès bi waaw nañu bàyyi xel ñi dee ci procès bi bakkan yi tey li seen bakkan ba ngir ngir sofi réew mi dong rikk sa nañ li bàyyi xel réew mi nañ bàyyi xel ñooñu bakkan yooyu nañ leen bàyyi xel bakkan yi nga xam dañ doon daw gàddaay ba jaar ci géej gi dee rikk nañ sofi nañ bàyyi xel bakkan yooyu seen projet nañ leen ko jéem a àggalal te projet bi mooy sofi réew mi loolu dong leen taxoon a tey di seen am na benn sikk leen a yërëm maanaam yërmaande gi ma am ci yéen yërëm leen man de yërmaande wax moom am ci ñun man xam naa ne dafa baax rek mais jurut moom jurut mënu koy wax ndax ñun ñëpp xam dama ko damay wax ne bi ma nekkee kër sëriñ saaliw yàlla yàlla dolli ak njéggalam ak tiyaabaam bi barakati say xinaa Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul sëriñ bi bis ci bis yi mu wóoru saaliw jaxate meen xam nañu ko doo ngay xam nañu ko ñu koy wax saaliw jaxate loos toppatuloo ko am néeg ci kër gi am ko mu woo ma ba ma ñëw mu jox a ko ne ko ma saaliw ma mu ne ma néeg bu bu la gën a lee dee fa fanaan bu la fii gën a fi fanaan bu la fii gën a lee dee fi fanaan te boobu fi muy fanaan foofa daa daan fanaan ne ma xam nga lu tax ma jox la néeg bi ma ne ko déedéet mu ne yow yi lay màtt ci laa la yëram wa ma sahit naa illaa bi ma naa lii may wax bu dul dëgg jaamu yàlla yëpp ëllëg yàlla ñëpp dem aljana ila ana man ma dem sabara mu ne ma yow yi lay màtt ci laa la yëram li ma bëgg a wax mooy man ak moom ñoo bokk fenn fu ñuy tëdd différence bi rek mooy dina tëdd ci kaw lal man ma tëdd ci kaw basan gi ci gàttal mais mu ne ma yow lay màtt ci laa la yëram ci laa te man xam naa ne yooyu koy maat yi may màtt war na koo maat yooyu koy yi may màtt war na koo màtt pourquoi mu sofe bakk maanaam mu sofe sama bakkan tey la bakkanam ma jàngatee ci yërmaande yërmaande jii ma yëg ne Serigne Saliou moom la amoon ci ñoom ma am ko ci man am ko ñun ñëpp am ko ci musuma am ko ci ñëpp yërmaande ji gëm naa gëm gu wér ne moom la président Ousmane Sonko am ci peuple sénégalais bi ngir bëgg leen ngir bëgg a sofi réew mi billaahi wallaahi wa taalaahi kon ñun ñii di wax mama bu nekk di sonn guddi ak bëccëg di def ay ojo mel ne koy jàppale président Ousmane Sonko jàppale wuñu Ousmane Sonko suñu bopp lañuy jàppale du ñu ay jaahil ñu borom ñu gàtt xel ñu ay dof duñu ay jaahil yàlla it mi ngi ñuy suturaal ñoo ngi lekk ñoo ngi naan dafa fekk nag ne président Ousmane Sonko lii muy woote lii muy combat mooy dëkk te bàkkaar man mënumaa gis bàkkaar bu gën a féetee kaw bàkkaar ci misaal kuy dem ci président Macky ak la nuru loolu di ko jàppale parce que def katu lu bon ku koy dooleel ci ak mbon kiif kiif yéen a ca bàkkaar def ko lu baax na ku koy dooleel ci mbaaxam googee kiif kiif yéen a yem ci tiyaaba ja moo tax Sénégal si patriote yi maa ngi leen a encouragé nañu bàyyi xel ñu ci àggee ak yi nañu teel yóbbu ndog nañu teel a yóbbaale seen i ndogu ca barabu wootewukaay pour sécurité bureau di odi loolu na ko ñëpp bàyyi xel ku nekk daal li ngay ndogoo na nga ko na ko na ko def bu ngoon jotee na nga ko téye la fàggu téye ko ba nga xam ne yow itti woowu woon ndogu pour dem sa kër diggante boobu gars yi mën nañ ci def seen i pexe ak seen i tiktak ba sàcc élection yi